mbokk déglukat yi nu ngi leen di nuyu di am mbégte ci déglu bi nu ngi leen di sant ak a delloo njukkal ci seen bataaxal yi firndeel seen cofeel ci seen émission yoonu njub jaa ngeen jëfati dégg ngeen ñuy wax naan daw ca ba ngay ami tànk muy lu wér lees mën a firndeel ci fànn yu bare nit dana nekk ci yenn anam ci dundam mu gisal boppam ne li mu nekk kat am na lu ko gën bu ko defee nag am na ñooñ duñu am fitu dëpp waaye ñenn ñi ñoom dinañu am fitu jóg daw ba daw jotee te am na ci mbind mi kenn koo xam ne defoon na lu ni mel bés ngir mucc ci dund toroxte gu ko nafsoom tàbbaloon kooku kenn la woon ci ñaari doom yu genn góor amoon lii moo nuy dugal ci sunu léebu tey bi nu yéesu indil mu ne dafa amoon genn góor gu am ñaari doom benn bés caat ma ne baay ba dama bëggoon nga jox ma li ma war a féetewoo ci ndono li noonu baay bi daldi leen séddale alalam ay fan yu néew gannaaw gi caat ma fab yëfam yépp dem ca réew mu sore yàq fa alalam ci topp nafsoom bi mu sànkee alalam jépp xiif bu metti dal ca réew ma mu tàmbalee ñàkk mu dem nag di liggéeyal ku dëkk ca réew ma kooku yebal ko cay toolam ngir muy sàmm mbaam xuux ya mu xiif ba bëgg a lekk ca ñamu mbaam xux ya ndaxte kenn mayu ko dara mujj xelam dellusi mu ne sama baay am na surga yu bare te dañuy lekk ba suur man nag maa ngi fii bëgg a dee ak xiif damay jóg dem ca sama baay ne ko baay tooñ naa yàlla tooñ naa la yeyatuma nekk sa doom boole ma ci say surga mu daldi jóg jëm kër baayam waaye bi muy jege kër ga baayam séen ko yërëm ko daw laxasu ko fóon ko doom ja ne ko baay tooñ naa yàlla tooñ naa la yeeyatuma nekk sa doom waaye baay ba ne ay surgaam gaaw leen indi mbubb mi gën a rafet solal ko ko te ngeen roofu ab jaaro ci loxoom te solal ko ay dàll indi leen sa luwu duuf wa te rey ko nu lekk te bànneexu ndaxte sama doom ji dafa deewoon te dundaat na dafa réeroon te feeñ na noonu ñu tàmbalee bànneexu fekk booba taaw baa nga woon ca tool ya bi mu ñëwee ba jub kër ga mu dégg ñuy tëgg di fecc mu daldi woo kenn ca surga ya nag laaj ko lu xew mu tontu ko sa rakk moo dellusi te sa baay rey na sa luwu duuf wa ndaxte ñibbisi na ci jàmm ci kaw loolu taaw bi daldi mer bañ dugg ca kër ga baayam daldi génn ngir ñaan ko mu dugg waaye taaw ba tontu baayam ne ko seetal ñaata at laa la liggéeyal mel ni jaam te mësuma moy sa ndigal waaye yow mësuloo ma may sax tef ngir ma bànneexu man ak samay xarit waaye bi sa doom jii dikkee moom mi yàq sa alal ci ndoxaan reyal nga ko sa luwu duuf bi noonu baay bi tontu ko ne ko sama doom yaa ngi ak man bés bu nekk te li ma am lépp yaa ko moom waaye war nanu bànneexu te bëgg ndaxte sa rakk ji dafa deewoon te dundaat na dafa réeroon te feeñ na nanu jàpp ne ci sunu leebu tay bi góor gi di bàyyi ñaari waxambaane yi mooy misaal yàlla mi sàkk ñaari nit ñu jëkk ña di aadama ak awa taaw bi nu mujj gis ci leebu bi day misaal nit ñi foog ne ñu jub lañu fekk dañu sore yàlla caat mi nag moom mooy misaal bàkkaarkat yi ràññee seen melow bàkkaar te waññuku ci yàlla ngir jot yërmandeem caat moom mii nag mooy ki nu fi gën a soxal tey lu tax ndaxte li mu wone fii noonu la xolu nit mel dëgg mbokk déglukat yi noo déggandoo li xew ak caatum góor gi mën na am ngeen teg waxambaane wi ab fippukat naan amul ngor te ku mën a fecc kóllëre la waaw loolu dëgg la te ànd naa ceeg yéen waaye xarit bu nu fàtte ne nun itam ci genn wet ay fippukat lanu fa kanam yàlla ndaxte bi sunuy maam aadama ak awa bañee topp ndigalu yàlla ba lekk ca garab ga mu leen tere woon dañu fippu woon dañu bëggoon a mos leneen xam leneen seytaane fiir leen ba ñu gëm ne seen dund dina gën a neex te gën a féex suñu fippoo bañ a topp ndigali yàlla te ndegam nun ñépp aadama ak awa ñoonu meññ kon nun ñépp itam ay fippukat lanu noonu lanu tàbbee nun itam ci bàkkaaru fippu ni aadama ak awa fippoo woon fa kanam yàlla noonu lañu nu yóbbaale ci seen déggadi moo tax ak nu nit mën a mel ak nu mu mën a tollu mu ngi ci biir doom ja baay ba te boo gajjee am ngeer ngeer rekk ko fay jebbi moo tax bu nu reccuwul nanu wóor ne sunug fippu ci dee lanu jëme ci léebu bi gis nanu ni caat mi ame woon lépp li mu soxla woon ca kër baayam waaye mu toog ba mu neex ko rek kenn defu ko kenn waxu ko mu fippu mu ne na ko baayam jox wàllam ci ndono li loo xam ne ka doon a ngi ni jaxaran dara jotu ko waaye kuy bëgg a dee ak kuy bëgg a toxu kenn mënula dëkk ak ñoom caat mi bëggatul woon dara ci dëkk ak baayam dafa tàyyi woon ci jëfe ay santaaneem te di topp ay ndigalam booba xanaa xelam dem na ca jëgg yu daan aw seen wetu kër daan fa sippi ab diir bala ñuy wéy la mu daan dégg jëgg yay waxtaane dëkk yu neex ya ñu daan dem moo ko taxoon a bëgg dañ kumpa ji réew yooya noonu caatum góor gi bëgg a mos dundin wu bakkane woowa mu waaj ba foog ne jekk na gàddu ëmbam daldi dem ndax bëgg a gis leneen xam leneen waaye ndeysaan ba mu àggee ci réew mu sore ma mu kasar kasare fa alalam jépp àndandoo yu bon ya mu fa amoon xaalis ba rekk a leen yitteeloon ñu yàqale ko alalam ci moy te ba mu demee ba amatul dara ñu dëdd ko gisatul kenn noonu bekkoor faf tàbbi ca réew moome toroxte dikkal ko mu wéet mbokki déglukat yi noonu la nit mel ca njaalbeen ga nit amoon na lépp li mu soxla woon ca toolu ajana ba ko yàlla sancaloon waaye bëgg liberte tax mu déggal seytaane te xamul na liberteem googoo koy jurali musiba kon ci dëgg danu mel ni caat mii dëddu yàlla ak i santaaneem kasar-kasaree sunu dund gi nu waroon a jébbal yàlla ba mu jeex tàkk moo tax kàddug yàlla ne ku jub amul du kenn sax ñépp a bàkkaar mu rax ci dooli ne te bi ñu xamee yàlla taxul ñu màggal ko ni mu ware mbaa ñu sant ko waaye ñu daldi réer ci seen biiri xalaat yu mujjul fenn ba tax seen xol gumba ba lëndam këruus lii mooy melokaanu nit ci kanamu boroomam bi ko sàkk ci nit àddina dafa mel ni réew mu bekkoor xat bare tiis ak naqar ci wàllu baatin itam caat mi nag bekkoor bi daloon ca réew ma indiloon naka xat-xat ak tiis waaye bekkoor boobu xéewal la woon ci moom ndaxte tax na xelam dellusi mu xalaataat ba mu seetaatee boppam gisoon na ne ku ñàkk xel la ndaxte mu nga foofu di torox fekk baayam la mu ama nga ne gàññ noonu mu dogu ci dellu kër baayam booba gis na ne yeeyootul woon sax nekk doomu góor gi ndax jëfam ju ñaaw mu gis ne lenn du ko jagal mbaa rawale ko lu dul mu dellu ca baayam rëccu te tuub baakaaram ndax góor gi baal ko kon caat mi fas yéene def noonu mu tegu ci yoon wi ngir réccu ji xarit di ñu déglu bi nga xamee ne caat mi dem na ba seen kër ga fekk na booba baayam a nga ko doon séentu bés bu nekk góor gi dafa daan xaar doomam dellusi bi baay bi séenee caat mi mu daw laxasu ko fóon ko noonu caat mi daldi def li mu façon yéene mu tuub baakaaram ne baayam baay tooñ naa yàlla tooñ naa la yeeyatumaa nekk sa doom mu bëgg a wéy ngir wax baayam mu bàyyi ko mu nekk jaamam waaye baayam bàyyiwu ko mu àggale ndax bëggul woon doomam nekk jaamam mu ne ay surgaam gaawleen indi mbubb mi gën a rafet solal ko ko te ngeen roof ab jaaro ci loxoom te solo ko ay dàll indi leen sël wu duuf wa te rey ko nu lekk te bànneexu ndaxte sama doom ji dafa deewoon te dundaat na dafa réeroon te feeñ na yi gannaaw xam na nanu ne yàlla dafa nu gise ni caat mii kon leer na ne li yàlla di xaar ci nun mooy nu def ni caat mi mujj a def maanaam nu gis sunu baakaar te nangu ko fa kanam yàlla yàlla mooy aji yërmande ji te dafa bëgg nu dellu ca moom waaye naka lanu mën a delloo ca yàlla xanaa mel ni caat mi ci léebu bi yàlla dafa bëgg nu nangu sunu tooñ fa kanamam maanaam nu rëccu ak xol bu toj te woyof gannaaw loolu nag yàlla dafa bëgg nga wóolu ko ñëw ci moom nan lanu ko mën a jege nag daanu war a nangu pexe mucc mi nu yàlla waajal pexe mi mooy joxe na Yeesu Kirist mu dee ca bant ba te dekk ca ñetteelu fan ba ni ko mbind yonent yi tërale sama xarit soo gëmee loolu delloo nga sa bopp ca yàlla daw nga mbugalu baakaar ca ba ngay ami tànk gëmal mucc gu rëy gi la yàlla waajalal lii rekk la mën a rawale ci musiba mi baakaar di jur yàllaa ngi lay xaar dafa yaakamte gis loolu ci yow ba teeru la te noonu dina amal bernde bés ba waaw mooy bernde bu mag bi yàlla di waajalal ñépp ñi bëgg a dellu fa moom jaare ko ci kirist yeesu musalkat bi mu tànn fal ko noonu dinanu bég te bànneexu ndaxte ni caat mi doomi yàlla yu réer lanu woon te feeñ ñu deewoon te du ndaat lanu moo tax mbég mu rëy di am ca asamaan ci biir malaaka yi su benn baakaarkat réccoo ay baakaaram te gëm yéesu ni musalkatam li caatum góor gi mujje loolu la kenn ku nekk waroon a def maanaam bàyyi lépp te dellu ca yàlla lay nag moom jeex na ndaxte pexe am na pexe mu wóor mi mooy nga gëm benn musalkat bi yàlla tànn mu tuur deretam ci palaasu doom aadama yépp lay jeex na te mbir mi jamp na lool sax yonent yàlla esaayi bind na ne wut leen aji sax ji léegi bi ñu ko mënee gis woo leen ko bi mu jege te ngeen wëlbatiku ci aji sax ji mu yërëm leen ngeen dellu ci sunu yàlla mii baale te du tàyyi itam biral na loolu bés keroog dafa ne mbooloo ma seet leen te dingeen gis ndaxte képp kuy seet dinga gis jaar leen ci bunt bu xat bi ndaxte bunt bi ak yoon wi jëm sànku yaatu nañu te ñi ci jaar bare waaye buntu dund gu wóor xat na te yoon wi jëm kaw sew na te ñi ko gis barewul waaye yéesu yemul foofu ndax mu ngi xamal àddina sépp ne moom mooy buntu mucc bi mu ne man maay buntu bi ku jaar ci man dinga mucc man maay yoon wi kenn du ñëw ci yàlla te jaarul ci man ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax ku dégg sama kàddu te gëm ki ma yónni am nga dund gu dul jeex te doo jaar ca àtte ba ndaxte génn nga ci dee tàbbi ci dund xarit yi ñuy déglu bànneex boo fi gis dafay jeex su dul bànneexu xam yàlla jaare ko ci yeesu bànneexu neen la dafay wéy yonent yàlla suleymaan doomu daawuda kenn ëppale ko woon ci wàllu am-am waaye itam ëppee su ko woon xeeti bànneex ci àddina ci lu nu mbind mi xamal wante demoon na ba gis ne loolu lépp neenu neen la ba tax mu yedd képp kuy nit rawatina ndaw ñiy xalaat naan a ah, man daal damay dox sama ndaw ba noppi soog a wax waxu topp yàlla yow muy xalaate noonu suleymaan a ngi la naan su la neexee bànneexul ci sag ndaw defal sa xol ci mbég bi ngay ndaw weel ci yoon wi la sa xol jëmale di topp sa nafsu te yafal say bët waaye xamal ne bés yàlla dina la àtte ndax yëf yooyu yépp mbokk mi nu déglu yàlla bëggul kuy xaar ba dee rekk dese ko mu soog koy wut li yàlla bëgg mooy nga gëstu ci xabaaru yonent yi ba xam te gëm yoonu mucc wi mu tëral ëllëg daara wóoru ci tey mooy jamono ju yell ji fa yàlla moo tax yonent yàlla suleymaan ne fàttalikul ki la sàkk bi ngay ndaw bala bés yu naqare yi di agsi te daawuda baayu suleymaan tamit nee na bu ngeen déggee tey ji baatu yàlla bi bu leen dëgër bopp kon fii lanu yem ak yéen tey jërë ngeen jëf ci déglu bi su nga amee laaj ci li nu fiy jàng bind leen ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis wala book ngeen bind nu ci sunu adresse électronique maanaam yoonu njub at sentu point sn yoonu njub aérobase sentu point sn yoonu njub nag nii lañ koy binde Y O O N U yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li mbind mi wax ne wëlbatiku leen ci aji sax ji mu yërëm leen ngeen dellu ci sunu yàlla mi baale te du tàyyi